maa ngi bu baax a baax a baax di am ci yéen kontaan te di am ci yéen mbégte Oumy Gueye xeexal askanam Oumy Gueye défendre leader Ousmane Sonko comme dañuy bañ ko fi bëgg Ousmane Sonko bañ ko défendre Ousmane Sonko mën Oumy Gueye Ousmane Sonko lay défendre parce que xamul tax sama doom la sama doomu askan la doomu réew mi la te nit ku baax la ku gore la jullit la am na dignité am na personnalité te bëgg na askanam voilà respecté na mag yi kilifa yi may leen seen baat may leen seen kàddu Ousmane Sonko yàlla nga gudd fan ku la yéene kaso yàlla na dugg ca kaso ba nga dem fekki ko xool ko jox ko sandi si suuf wanewaat ginnaaw ñëw Ousmane Sonko yàlla na yàlla xañ Macky Sall palais bi nga jël ko Ousmane Sonko yàlla na yàlla xañ Macky Sall ensemble bi nga jël ko comme dañuy bañ ku la bëgg man dama la bëgg balay ñaanal déggoo ma de Ousmane Sonko Macky Sall saa yu nekk ci sa kaw yàlla na yàlla wàcce mbugal ci kawam voilà. comme Banco, ko dama ko bañ bañ ko fal force fi de déedéet pour lan Moi, tax ñu jàpp canté. calmez-vous calmez-vous manifestation manifestation il ñu a Ousmane Sonko Sonko libéré Sonko. moi mm. calmez-vous calmez-vous ñu woo ko ci tëj ko ci ah <laughs> mais il y a ana capitaine Touré bataille tey bataille ah ba yorul ay potam di yalwaan jamais de la vie gor gor du yalwaan <laughs> yàlla du seetaan. ah oui, vous le partage leen Sénégal dañu am liberté am démocratie war a yee nous askan voilà ñun kenn duñu njabar Nous suñu gémmiñ kenn sur les kenn nous nous des une ñu jox nous gémmiñ pour ñuy wax jox ñu xel mu leer ce suñu borom jox ñu gemine pour ñuy wax diko ci jaamu diko tuddu di julli diko ñaan kon nak man nak damay julli di ñaanal sama askan di ñaanal diaspora bi di ñaanal immigré di ñaanal ñepp nak saf Macky Sall limay ñaanal Macky Sall rek moy limay yene askanu Sénégal ak bëpp mi yalla sak jigen sàkk nga and ak Macky Sall yalla na mbug wacc mbugal ci seen kaw waaw hmm yalla moko wax ci alcorane ku la to ñaanal ku seral sa xol ñaanal Ousmane Sonko dafa seral suñu xol corona bi anamu ba suñu jonne yalla tay dañu ñu doon ñuy dee di suulante suñu biir ci biir kër yi parce que duñu am droit dem suuli néew parce que boo defee <laughs> dajaloo ñu ne la déedéet corona bi quoi ah yàlla du kenn kenn du moom partagez leen partagez leen vidéo bi partagez leen partagez leen live bi la dañuy waxtaan doo fi lekk doo fi naan doo fi wax ko waxoo dëgg dañuy wax lijjanti wuñu problème kenn suñu problème dañuy lijjanti muy leen Sénégal Macky Sall kenn bañul sa jëmm sa jëf lañu bañ ak ni nga yoree Sénégal dañ koy wax aji def aji wax lay wër voilà aji def aji wax lay wër voilà télé wal fajri yéen da ngeen a invité Kanté ba pare bëgg ko sàqal lu muy wax bëgg ko par parole naan ko waxal fi lu ñu wax day leer télé telewal faj fajri yéen ngi commencé déborder ah yéen ngi commencé déborder parce que su ma xoolee yéen depuis manifestation bi 14 millions yi ba tey benn télé taxawul ñaxtu ko benn télé taxawul jooytu ko benn télé taxawul wax wax ci ndax télé na fekk lañu ay télé hypocrite lañu ay journaliste xaalis lañu à part Ahmed Aïdara Mansour Diop Djibril Pape Ndiaye Pape Alé Niang gor ñaa ngi nii gor su gor ñaa ngi ay gor nañ ay doomi gor nañ mais ñi ci des ñëpp ay doomu làppatoo lañ togu luñ fi askan bi ñom ñoo ñëk war askan bi journaliste tas nañ kër tas nañ sey xaru no la nit tax nañ nit xaru yak nañ fi daru nit journaliste lu bon lu neen tek nañ ko doomu ñom waru ñu wax kenn dara di neub deug di tek fen journaliste yi di neub deug di tek fen parce que lan mo leen ko jaral tay la seen askan ngir lan seen xaalis ak seen ngor du jaamu xaalis di lëndëmal askan bi c'est parce que ci lolu ngeen dox askan bi yalla leen askan bi ñoo war a booy boycotté télé yi képp ko abonné ci télé yi nga deñ gindi ko mu set man lu ma gisul sama bopp du ci jaayu ah lu ma gisul sama bopp du ma ci sagu pour lan pour lan diaspora bi immigré yi maa ngi leen nuyu bu baax a baax a baax a baax bu ñu leen mënoon sol feebar ba du ngeen liggéey di envoyé xaalis muy ñëw sax nañ leen ko def mais yàlla ngeen gudd fan yàlla na yàlla wéral seen cër yàlla na yàlla teral leen yàlla na yàlla suturaal leen li ngeen di wuti suba su ngeen xëyee yàlla bu yàlla tax seen yaakaar sàmmal leen seen kanam seen ginnaaw seen famille seen njaboot seen lépp li leen naq di ci Sénégal yàlla may ndam muy lan Macky Sall jóge waaw da jaamu yàlla ñi ñuy tere jaamu yàlla yàlla nee na ñaanal yonte yàlla dafa ñaanal ay nekk yonent kon ñaan boobu ba tey mi ngi fi yàlla boobu ba tey moo fi nekk nañ leen ñaan d'identité yi réglé leen ko carte d'identité yi ku nekk wowal say nit laaj ko ndax sa carte d'identité am na wala non vote la nga dem lijjanti ko ci préfet weer ci mairie yi waaw mairie yeewi askan bi ni leen Macky Sall bëggee xañ pour ñu liggéey moom yàlla na ko yàlla xañ réew mi ak ensemble bi ba du ko tal li ñu naan koy pexeel na nga ko tal koy jógal nan ko tal voilà képp kuy jógal Sénégal rek yal na la yàlla dëj ba dootoo jóg képp ku ñuy pexe yal na yàlla wàccee pexeel muy sa mbugal comme mbugalu na partagé leen live bi dañu war a live ñun dañuy ñun amuñu naqar de parce que xam nga yàlla dañu may xolu muñ ak xol bu fierté ba nga xamante ni ñun lu ñëw dañ koy dundee bànneex parce que ñun ay jaamu yàlla nañ tàmm nañ dékku nattu ñun doomu aadama du ñu mbugal te yàlla mbugaluñu ñun tàmm nañ dékku nattu yonent yi sax dañ doon am nattu ndax yàlla da leen a bëgg kon ñun Sénégal yàlla moo ñu bëgg na mu defaral Sénégal moo tax mu teg ñu nattu bii mbugal ci ñu bon ñi nattu la Macky Sall nattu ci ñun ñu jullit yi ñu baax ñi mais mbugal la ci ñu ñi yalla du toroxal jaamam ñun ñooy toroxalante rek mais yalla du toroxal jaamam ah. senegal yalla ko na ma defar ah moo tax mu wacc fi natt bi ha ah. ta natt bi gëm na ni dañ ci at mi ni at mi yonte yalla yi natt bi dañ ci at mi ni at mi yonte yalla yi natt bi ñu yalla tek natt bi bu ñu ko mune muñ combat continue voilà parce que ko li tax mané bi day dañ man sa yu julé damay ñaan xex bi combat bi bu buñ ci naree am ndam yàlla dinañ ci teg donkaas yi yàlla na may yàlla may suba suma xëy wér ak kattan ma ciy gën di puus di ci gën di sawar te wallahi lazi laa ilaha illa huwa saa yu ma yeewoo damay gën sama xol day sedd ñaanal Ousmane Sonko ñaanal sama askan ñaanal diaspora bi immigré yi xoolal su ma jëlee sama portable dafa mel ni sama xol day sedd guy kon donc ñaan bee nangu komba bi continuer combat bi dañuy am ndam ku ragal yaa xam jaamu yalla bu gëm yalla deug deug di tawxital diko xital di jaamu ragal dara sa dekk boo ragalee sa dekk kay bu dem takku jaamur kon dang fay yox yoxi ba ñak li nga moom ñun nak luñu yox yoxi tiituñu ragaluñu dawuñu daayiwuñu parce que xamuñu tax dañuy and ak yalla booy jogal nit nang ko tal yaakaar naa ni kep ku jogal te nit boo gisee boo gisee Macky Sall ak Ousmane Sonko war nga xoolaat kep koy jogal nga xol ki ban façon nit la wala ban façon jaamu yalla la Ousmane Sonko oustaz Aline Badara Ndaw Guy sanya Sagna film Jazz. ku len bëgg jógal yalla na yàlla toroxal ko wacce mbugal ci komba du len tal kep ku ñu bëgg tayle suñu Sénégal kay tok bu ma topé dara yalla na ko Yalla xañ borom te yalla na yàlla tas seen bal basik bi ñu bëgg def Sénégal diko def seddo gato dedet yalla bu ko suñu borom bi nang ci barke leeru alquranul karim barke déggu len ma de alxamis wooru len ni may sama aajo rek la lay wax ngeen fajee ko aajo ndax julit dafa wara yaatu julit dafa wara jaamu yalla diko ko parce que amna na ñoo xamante na ñu jaamu yalla mais xamuñu yoon bi dañ leen ni nax naan lay ay dafa am aaj jaamu yalla amul aaj jaamu yalla lo magget magget bo jaamee yalla kenn ko selal ko set yalla may la boko ko ñaari mu may la lo doon xale xale xale moytu sobe moytu moy moytu caaxaan mané bo boo suñu borom loko ñaan mu may la mané jaamu yàlla bu jub moomul mun fétiche laa wax gouvernement bi fétiche yi ñu yaakaar wallahi lazi laa ilaha illa huwa dara dootu ci jàpp déggoo ñu de ñun du ñu nelaw guddi déggoo ma leen jaamu yàlla góor ak jigéen ñoo ci bokk yem góor ak jigéen ñoo ci bokk yem amul jigéen li la war def góor la war déedéet ku leen ko wax da leen jaamu yàlla góor ak jigéen moo ci bokk yem bu guddee ñëpp di nelaw nga jël sa alquran taw taw xital suñu borom di jàng di jàng ba 3 heures 3 tegal alxuraanu karim bi jullil dernier sujjóot bi ñaanal foofu yàlla li nga bëgg yépp nekko boo ma mayee yàlla lii mooy sama soxla man sa jaam bu doyoodu bii man sa jaam bii di toroxlu man sa jaam bu xeebu bii maa ngi toroxlu sa kanam allahuma rabbi allahuma rabbi allahuma rabbi jur jalal iqram rabbu samawati wal ard yaa xayu yaa xayum yaa xayu yaa xayum yaa xayu yaa xayum yàlla maa ngi lay ñaan yaay buur di borom di ponkal di mbër yaay yaay sama dun Macky Sall nii mu téye réew mi maa ngi ñaan lépp lu mu yaakaar ak bépp mu def bu yàlla sa sàkk jigéen jur ko ànd ak Macky Sall di jéem a faagaagal Ousmane Sonko wala di jéem a faagaagal askanu Sénégal wala di jéem a faagaagal immigré diaspora yal na yàlla wëlbati ko muy mbugal ci kawam ba du tal kenn wallahi lazi yàlla boo ma defalee lii dinaa la wooraatal ñetti fan santee la ko wala ma wooral la ñaari fan santee la ko billaahi wallahi tallaahi yàlla day nangu ñaan Macky Sall ngeen defee ne lu mu def mu fiit lu mu def mu yàqu ngeen defe ne lan la ngeen defee nit ñu baax ñaa ngi seen roqo yi di kennal yàlla di ko ñaan ñaan yàlla doo ko fay xaalis doo fere doo def dara yow jëlal say nelaw ak ko fële ñay xandoor di nelaw xoolal nga won leen ne yéen yéen a tal nelaw man nelaw ma man jaamu yàlla ñaan suñu borom moo ma moo ma ñor. parce que boobu yàlla day ci juróom-ñaareelu asamaan naan sama jaam yi ana sama jaam yi ku bëgg ma may la ñaan leen ma ma may leen. bo su jotto da ngay gëna jégg suñu borom ñaan leen Sénégal li li ni xana xamoo Sénégal li tax boobu ba tay makk Sall xamul lu teyé loxo ba fitna am ay ñaana ko téye ay ñaan mag ñu bax yaangi seen roq di ñaan kilifa yu bax yaangi seen roq di ñaan amna ño xamni bo la wuñu dara ak wax yor yor dañuy tëju di ñaan suñu borom diggante 5 h 6 h dañuy tëju di ñaan suñu borom xaaju guddi 3 h du matin dem 4 h dañuy tëju di ñaan suñu borom. te di lott di tudd di tudd yàlla di ko tooyaleen seen gémmiñ astafurlah wa bi ilayhi yàlla day raxas say bàkkaar sa bàkkaar bu setee ci yow doomu aadama bi loo ñaan yàlla may la ko laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina na yàlla day raxas sa bàkkaar jëndil la bépp jafe-jafe feebar bu nekk sa yaram boo ko tàmbalee sa gémmiñ da koy raxas tey woor léeg-léeg di faqastalu di woor looloo gën a gaaw loolooy ordonnance bu gaaw bi tey saxoo njàpp rek nag li dem ba sa noon yow day jommi ci yow kii li ma def yeb Ousmane Sonko demul ci benn njabarkat gis nga nitu yalla moy xam moromu nitu am Ousmane Sonko demul ci benn njabarkat pertul benn xaalis di dem daan ñaana ma déedéet ni ko wara ñaanal ñooy xolal ñom seen bop ñoo koy woo ko ñaanal Ousmane Sonko kilifa yee koy wodi ko ñaanal parce que dañu xam ne kilifa yi nga xam ne dañuy yag ak yalla di tawxita suñu borom xam nañ ni xale bi xale yalla la xale bi nitu yalla la dañu koy wo jema a xaritoog ñaanal ko pousse ko mu dem Ousmane Sonko jeunesse bi di ko wéttali yi diaspora bi tegu ci wetam di ko ñaanal billaay wallaay ku leen ne leen ñaan amul dafa xamul màkk ñaana ko gaaranti ay ñaan moo garanti màkk yonte yàlla Ibrahima dafa ñaan ba ñaan màkk yàlla garanti ko dajjaal buy ñëw dëkk yépp lay dem ba mu des màkk day dem ba jege màkk naa fekk màkk yi génn fekk yi dajjaal te ñaana ko def te ñaan bi gën a gaaw mooy nga ñaanal sa bopp benn bi mooy xoolal seralal soqalu waajur bu góora a bu jigéen sa moromu waajur xoolal seralal xoolam respecté ko ku néew doole yërëm ko léeg-léeg nga faqastali ku ko ñàkk nga mu leer la kii teg ci jafe na ko nga jox ko xettali ko gis nga noonu ngeen koy xettale noonu la leen yàlla di xettale dama leen di wax secret def lu baax am lu baax Ousmane Sonko day fayeeku seleeram di dimbali néew di doole yi Casamance Ousmane Sonko bu jëlee conseil day dem bay bu daan jàng bu jëlee conseil day dem bay te loolu yëpp ay néew di doole la koy def di xettali jaamu yàlla yi xam ni xool leen nim ñu xettalee ci corona bi kooku yàlla dina ko dina ko pàdd déedéet c'est que Sénégal benn problème ngeen am gis nga nit bu ngeen demee ba mu yéem leen ci benn problème ci yenn yu baax yi muy lan kii de ku ko songo daanu ku ko songo daanu mais lan mooy problème loolu nag moo gën a gëstu mais kenn du gëstu mbirum saay-saay li ngay gëstu mooy kii ku ko laal daanu ku ko laal lan la lu mu defal suñu borom baaw kay. nga roy ci moom jaamu yàlla boobu ba yow la laal daanu ah kay woon yonent yi ba ku leen laal daanu yàlla jooju ba tey moo fi ne te ñaanu yonent yooyu ba tey mi ngi fi am na yàlla nit ñu mu ko may. yàlla may na ko ay nitam ci ñii ñii ma lay wax nii voilà Kanté. Euh, policier boobu ñu naan Kanté manifestation yi xale yi naan Sonko Sonko Sonko mu leen calmez-vous calmez-vous calmez-vous boobu geste boobu rek ñu punir ko ci tëj ko ci rajat rajat rajat ko xaw ma gis nga dàq ko xoola loolu kon dañ ne daal turu Ousmane Sonko crime la crime la ku ko bëgg rek yow yaa ngi ci mbugal waxu leen dëgg de yàlla mbugalu ñu ngeen ne ko bëgg Seydina Ousmane Sonko mi nga xamante ni turóodoo moom la yàlla rus lu mu ñaan yàlla yàlla may ko ko Ousmane Sonko mi nga xamante ni yàlla rus ko bu lu mu wax mu doon dëgg jomm naa fen ndax du lekk alal gu lewul jomm naa fen ndax du tas yaakaaru jàmbur jomm naa fen ndax du toroxal askanam jomm naa fen amul xaritu góor jigéen jomm naa fen faralul formation jomm naa fen di toogandoog ay naafeq jomm naa fen du neub askanam jom na fen andul ak ñi nga xamanteni dañuy tour askanam lendeum mu and ca ak ñom koku jom na fen koku lu mu ñaan yalla da koy def gis nga alal gu lewul boko lekul lo ñaan yalla da la koy may muy goor di jigen la wax soy dundale sa jabot alal gu lew gu lew lo sa njaboot yàlla day day def ci ñom barke dama ni ñak tedd ñak jarignu la wax fi ku ñakul tedd doon sacc te ku doon sàcc gàcceel say waajur gàcceel sa famille kenn du bëgg a bokk ak yow. askanu Sénégal léegi dañoo jub jigéen ñi gëm nañ takk seen sër liggéey góor ñi gëm nañ takk seen seen liggéey. gouvernement bi nag ne non non ñun bëgguñu yoonu jub ñun yoonu saay-saay rek yoonu vayu yoonu bandi. xiifal leen bu ngeen bëgg ñu jël leen ngeen nekk seen merveille askan di lekkante di dóorante pour lan. ñun dañoo jur yooyu doom ñun yaay yi dañoo jur yooyu doom ñun yaay yi pare nañ taxaw takk suñu sër xale yi dañuy jub fal fos incha allah fal fos ñun dañoo xalaat teg suñuy fer wala suñuy sëru nocc ci ci ci bopp bi suñuy doom di ko sàcc pour lan loolu leen leen di formé ah loolu lañ leen di formé wala nga jékki-jékki guddi jot say doom doon la attaayal dembaak paate nga xëy xëy ne leen attaayal ñu ne yaa dafa am ci lu ñu ne. tëju ca néeg ba ne may ñu ñu gisee tuuti fekk ña nga ca. ci lan gor jigen <laughs> du fi am de déedéet Senegal de Sénégal ñoo rafle mag yu len wax deug senegal ño raflé mak yu len gungé senegal ño raflé xalé yi bu ñu jooyee ñu fompal rañ sa rangoon senegal dañu raflé mak yi duma né mak ñepp nak amna ci mak ño xamni ñi ngi déy xalé yi nank ñi ngi déy xalé yi da ngay xol yow senegal dund bi seer lekk amatul liggéey amut dara amut yow da ngay gis sax léeg nit koo xamante ni day ñëw ne la wallahi lazi laa ilaaha illaa huwa day yor saako ne damaa bëgg ay yëre ay yëre wala mu yor saako ay ceeb laa bëgg wala siwo siwo gis nga siwo bi tuuru ci teer bi comme siwo yooyu am na ñu koy yor fii naan damaa bëgg yóbbu sama njaboot lu ñu lekk li comme njamu mbaam billaay wallaay comme njamu mbaam nga leen ko ciy sotti ñu leen jox ko seen njaboot Sénégal gii am na ñoo xamante ni mën a la ñuy defar rosi ko ñulug ko teg jeeg ji nga xamante ni nekk ci koñ yi ñàkk dañuy ñëw jënd ñulug billaahi wallaahi tallaahi dañuy jënd ñulug keroog la wax nañ ko ci seen TV ah, ah, Alaaji Mansour rek wax na ko dañuy jaay ñulug ñulug boo jëlee ñulug gi dem sotti sa cin daal di jënd kilo ceeb wala kilo libaru ceeb nga sóor ko ci yàqal sa njaboot fii la Sénégal toll fii la Sénégal toll ñu inauguré ay stade di fa suy nag ay ay fétiche xanaa pour stade bi fees waye amuñ amuñu ci lu len neex hmm. fetish munu la may loy bege turu yalla mo la meuna begal mais pas fetish fetish munu la may loy bege léegi avec ça nak suñu télé ci loxo yi ñu bëgg ñuko téré muy réseaux sociaux yi télé yi nga xamante dañu nekk Sénégal na fekk fan rek lañu ñu parce que ci salaire fan lañuy dox étudiant yaa ngi nii ñaata weer kenn wul étudiant yi ñu war leen fay ba tey ñu leen am na ñoo xam dañ leen tëbal ñaari weer am na ñoo xamante ni dañuy tëj seen xaalis mënuñu ko jot ñu ngi nii ba tey ñuy inaugurer stade di ci fere ñaata million di ci yóbbu ci ay waykat Ablaye Wade war a ne cëpp Sénégal taxaw na jeunesse bi lii am fi woon xeex leen lii jënd leen lii wax leen ci li nangam nga ñëw ànd ci ay foox ci magum jëmm mu kalaf wara a wéetoog yalla wara a yor sa kurus wara a sa pilian jàkkaaroo suñu borom ñaan ko ne defal ma senegal gi nga xamne yoron nako jamm am fi nga ne yaangi ñew ci tay ay tek deug dil ay ndëgg sërëf di wutal Karim Wade yoon ba tay fi nga mat nga ne day dag way yalla bu ko yalla dag li ngeen bëgg diko complo yalla leen yalla wër xawi seen sutura yalla leen yalla wër xawi seen sutura te il billah yalla dina senegal mi ngeen jagg tek ci deug sërëx yalla leen wër woote stade am ngeen fa lu leen doy sëkk ku fa dee kan moo fa dee xale yi du ñu mujjee parce que xale yi seen xaalis leen jël defaree ko stade bi ba pare ñu bëgg leen séexlu jënd leen ay tubaab jël tubaab yi jël leen noo teg leen ñuy noobu ci kaw jël xale yi bëgg leen toroxal ci suuf moo tax lu ngeen mujjee sànni ay xeer ak toj foofu xale yi dafa ñu de xale yi kenn dootu leen xalé yi kenn dootul len yëpp parce que xalé yi dañu yewu legi duñu la jox xaalis ngeen liggéey la ba pare wëlbati ko di leen siixlu ay tubab am ay liggéey yo len wara jox liko jox ay geek fu nek bàyyi sa bàyyi bàyyi sa askan problème de impôt bi impôt Sénégal dekk yu bari impôt rek mën na mën na mun na defar dëkk bi impôt té impôt respecté wuñu ko niñ ko wara respecté kër gi wara fay impôt bitig yi wara fay impôt xol leen yi cantine yi Sénégal jaay

ba pare nag seen bourse ñu leen koy xañ ba nii laa la wax am nañu fayeekuwul bourse ñaari weer tëblal nañu leen fayuluñu leen bourse seen togg yu bon asaw salte nëpp ci ay doomi jàmbur yàllaa leen di sàmm te yàlla leen yàlla yokk sàmm lépp lu leen a lor seen biir yal na ko yàlla soppi mu doon seen gudd fan ak wér